bisimilah kon dellu si waat nañ tey sëriñ bi ngir yeesalaat suñu jaayante ci yow di la jébbalaat suñu jëmm ak sunu alal di xamal àdduna sépp nag ne nosuk bu tarxiya ak baat bi ci sa loxo rekk la ne te seqoo ko kenn ndax alali sëñ Tuubaa te yaa ko fi nekkal fas nañu yéene du ñu gestu du ñu taxaw